waaw salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar seen mbokk Ndeye Khady ba tey man may ñëw yéen ci seen canal Khady Thiam tey waaw sama naar eh, di leen ñaanal yàlla du jàmm macha allah indi leen leneen lu nga xamante ni que si lu yomba defar la mais dafa laaj tuuti technique lañ koy wax neem neem bari nañu kuy def façon neem mais bii man neem bi ma leen indi tey neemu chinois la. recetao chine euh, chines la so ma wan leen kon sama ingrédients yi nga xamante ne si moom laa indi pour tey waaw eh, li ci ëpp li ci ëpp solo moom mooy langostino bi waaw bu kosi cosido bi laay laay jël voilà nii waaw am nañ suñu pat bi nga xam ne moom lañ koy defaree voilà bii nag comme légume la poojoo kese lee dong doon ak langostino ak euh, bu légume bi légume bi moom mooy suppome voilà suppome bi ak carotte waaw ak laaj ak poobar kaani yu saf-safaan yooyu ma boole ko yëpp ba mu egg dëbb ko ba mu nooy mu nekk benn nokkos ci gàttal rek ma teg ko fële de am na suñu laurier macha allah am suñu salt euh, xorom bi am avec man euh, neem avec crème laa ko dee defee xam nga waaw ay euh, ingrédients yu yem la la la soxla mun ko ay ingrédients yu yem la soxla te amul kii amul euh, liggéey bi na xam na tuuti compliqué waaw parce que da ngay lii da nga koy gratter bu ñu paree dañ le woon ni ñu koy gratter mooy supame bi carotte bi tamit noonu léegi li ñuy njëkk a def mooy jël suñu poojoo bi da nga jël podio intera ah, ya xam nag sa quantité no noo bëggee parce que bu fekkente ni si da nga bëgg mën nga def sa genn wal podio mën nga def sa genn wàllu ki voilà léegi bu ñu po kii bi ni dañ ci duggal directement podio bi dag tégon nañ suñu ndox ba muy bax ñu duggal ci podio bi ganar bi ngeen baal ma waaw def ci touti sal xorom bi bàyyi bu langostino bi ñëw nag dama ci defar beneen kii wu abi crème mën nga bàyyi ni muy baax tuuti ñu ñu dem raxas suñu langostino bi indi ko mhm. daal programme euh, programmer pour dagg dagg suñu supame bi ci digg bi voilà moom boo ko daggee ci digg bi rek après dinaa leen woon ñu koy euh, kiiwee nuñ koy euh, gratter comme amoon nañ fële suñu grattoir am na nag léegi ay machines yu gratter wala dara noo ko mën a kii mais liñ ci soxla daal ñu gratter ko grate bu sew ak ay ak carotte bi tamit ñu gratter ko noonu bu sew waaw mbokk yi di leen nuyu bu baax nag di leen ziar ah di ñaan yàlla ngeen kontaan ci seen vidéo bi tey bi daal voilà léegi ah, langostino bi ñu jël fii quelque mom lañ gissone ni muy euh, ki bi mom nañ ko gëné da di koy raxas bu mu set tambal ko ci biir man bi la tam bu congelable pero igual mhm. lu ci am solo la parce que da koy jox sabor bu neex a neex ku nga xamné tam da nga allergie langostino bi jarul ko ci def mais dana changer touti nak sabor bi li gën kon moy def ko ci masha allah. Mhm. Mm-hmm. léegi nag ñu raxas lii pawsam waaw mi ngi nii rek ba tey léegi suñu karoot bi nii rek lañ koy def limpiyaar ko ndànk ndànk bu mu set xam nga ñu ngi bàyyi woon suñu ganaar bi mu ngi bax tuuti ci kanam bu baxee ba jóg rek après ci la ñuy jël gambas bi teg ko ci kawam xam nga gambas moom kii bi langostino bi moom soxlawul euh, gaz bu yàgg mais ganaar gi moom dafa war a ñor ci biir parce que buñ ñu paree dañ koy siddi voilà oo oh, baral tuuti gaawantu lii la wax neem neemu chinois daal man noonu laa ko tuddee sama kër parce que recette chinois la donc euh, ñu koy wax fii burrito reto moom lañ koy wax ci espagnol mais ci Sénégal lañ koy wax moom receta bu jaar yoon la macha allah. waaw mbokk yi ñu ngi nii ñu ngi rek ko defee mooy ràppi rek ñu ngi bi may wax léegi sànq ingrédients yi ci doon dem dama fàtte woon ni euh, vidéo bi ne da ci demaale voilà boo gisee ni mën nga taamu bu sew mën nga taamu bu dijj lu la gënal rek voilà mais man bii laa tàmm di defe daal voilà léegi comme ni lañ koy gratter su pomme tamit noonu lañ koy defee léegi comme ñu ki woon nañu euh, ubbi woon tegoon nañu bi ci biir bàyyi ko ba mu xaw a jóg léegi dañuy jël suñu benn abi crème dugal ci biir bal jël langostino bii nii dugal ko xam nga nag bu cosido la mais teewul danga koy baxalaat rek voilà moo tax muy xaw a yéex a dugg nii tuuti bàyyi ko nag muy bax ba ci kanam xam nga amoon na xorom am na yépp léegi nag danga koy def ni wàññi ko nag def ko feu doux parce que du nekk feu bu mag pour mu ñor ndànk ci biir te du kii du tuuroog yooyu voilà tuuti rek ci kanam ñu ñëwaat léegi bu ñu ci defee suñu langis dana continuer nag di rajaat li gën a nekk ci liggéey bi mooy lii euh, gratte bi da ngay nekk di gratte rek ba mu egg parce que lépp euh, kii la bu paree day nooy mhm. marché yi nga xamante ne dafa koy dóoral mu daanu ci saa si doo fi nekk di dóor benn benn mais ko amul tamit ko man na nga jël sa kii bi nii bi nga jël sa temps rek ndànk di dóor mu daanu li ñu am togg ma macha allah boo ko tàmmee dañ ci dévertir mhm. ngay nekk ci waañ bi di xos-xosal ndànk rek ba ba muy egg ci jàmm ak te buñ ko gratter nii ba pare nag daal di koy euh, mélanger. બોલે સુપામાં બી pili. lii pour ñu terminer ak yéen ci carotte bi su pomme bi nii rek danga koy dagg ci digg bi moom tamit nga jël ko di ko def nii ndànk rek tuuti ak conscience rek day dem ndànk rek nee naa leen partie bi ci gën a soof ci liggéey bi mooy bii mais ak patience rek ngay jël ndànk di xox xosal gratte ko mu ngi mo ci xawa gëna gëna metti waaye togg mom benn metti wu bo defé ndànk rek day dem ngay ëlbati di defar moytu sa loxo dagg mhm. xam nga macha allah suñu ki bi ñu ko bayyi ne ma ngay bax gis nga wala ni mo ci bax nga gëna wañi nak ndox bi bu paré ci lay ci lay euh, baxal duma ko baxal mais dama koy xaw a tàngal tuuti rek ndox ndoxu ganaar bii nii bu paree moo tax ma def ci kimage bàyyi ko nag mooy bax léegi nag ndox mi moom doo ko tuur parce que lii man ci laa koy euh, nuggale noonu ci laa koy xaw a laxale noonu ndax dañ koy laxal moom bala muy dugg ci biir nga jël sa ciseau daggate ko ba mu sew sotti ci kawam pratique bu kii la du togg di yàq mais boo paree rek boko tege ma sha allah situ gambar sini mi lagi ak war kal la day neex hmm legi su fami bi ni rek lañ koy defé defar ndank di ma sha allah bo grattee nu ki rek daal di def ni bool bi nga xam ne moom nga koy mélanger mën nga ko teg sax nii direct rek ci dóor mu daanu def sax mooy mu daanu boo ci defee sa benn supame bu mag rek dina doy ak benn poojo bu bu yem mhm. benn ganaar entier bëri na ñuy defar neen dañ koy defar yàpp kese boo paree neem ci biir day xaw a wow daal mais fekk mu ànd ak légume day day day nooy ba pare daal essayé leen bu légume bi rek après yéen ngeen wax ma saboté wu ma nag <laughs> bu bu yàpp bi ngeen di defar waaw mais bii tam ku ko ci essayé doo doo ko bàyyi mooy bu légume bi nii su pome ak carotte ak moom mooy base bi ak ganaar bu ñu baxal ba mu bax boo paree danga koy siddi ba mu set jël say gàmbaas def yi sama li xaw a soof ci liggéey bi nag mooy lii voilà da nekk di gratte rek jëmal bu kenn xamul mais bu paree sha allah ba nga jaxase sa sa nokkos bu saf ba lee nga def ci kaw day neex ba dee ale boo defee ni ba mu fees nga yëkkati mu nekk ci biir nga continuer waat ñu nga koy jàppee bu beneen bi jeexee nga daal di jël ci gitu, des menit nga gis ni lu bari dina nga ko masha allah mhm. suñu nokkas bi ñu defaron ni mom ci la defon laurier parce que comme lii ni laurier bi du yomb pour ki ji té man dama bëgg laurier lool du génn sama plat ak sungufu naar yoy ma jaxasam ngi ne ci gannaaw di tégué gis nga nii ni day daal di nekk ben supame bu nga xamné jaxaso carotte bi macha allah léegi mën nañ jël tamit deuxième phase bi mu ñëw comme ni neem yi am na façon am na façon bu nekk man bii laa gën a taamu pour defe ko pat bi feuille bi daal bii laa gën a taamu mi ngi fi tendaak chino yépp am na fa tendaak chino boo dugg fii jaay yu congelé yi boo demee duñ ko fa am continuer rek di gratter ndànk suñu supame ah di gratter suñu carotte bi le temps que muy egg tombe ganaar bi egg ganaar bi ñëw ñu siddi ko ba mu set daal di koy boole nag mélange ko bu ñuy mélange waat ak ñëwaat ak yéen ci deuxième phase bi ñu xool nuñ koy mixé ak nuñ koy euh, nuñ koy lëmase ci biir feuille bi boo ko ci lëmasee pare naka nga koy saafe lolit dañ ci ñew tout ci kanam xutwa xutwa lay doon manam face ak face mais inshallah da ngeen ci contane bu ngeen paré mbokk di leen ñaan nak like muy jëm kaw commentaire yi muy muy muy muy jolli ndax té man bu ngeen défaré sen sen sen sen plat yi bëgg na ngeen ngeen commentaire ni wul yone ma wax man ni ngeen ko défaré et tout da voilà loolu moy doxal liggéey bi nañ ngay waxtaan ci vidéo yi loolu lu am solo la. Mm-hmm. masha allah te ki dara na gis nañ jàppale bi like yi bari na ah tubaarkàlla macha allah abonnement yi semaine bi mom nee mom moom <laughs> allah daal <laughs> wa boo gisee ni mën nañ sigé sigé sigé ba ci kanam touté rek ñu daal di ñëw légui li mën nañ ko bayyi ni ñu sigé ñun ak suñu carotte bi rek dal en même temps ñu gëna contrôler suñu ki bi mi ngi ni di dem mang ci biir le nga tejar rek nu bàyyi moom ñu continuer suñu carotte bi yëpp système la rek bu nga xamné bo démé bu min ko tan nga koy daaw parce que man comme tàmm naa restaurant na xeyna man na gawant ni motax commencement bi mako don ben benal di len won ni da mais man comme tàmm naa restaurant sha allah man na gawant dal mais yeen kuy defar rek ma nga def naan parce que li dafa gaw ci dag loxo man mi do wax ak yeen tag na samay baram ba tey grattoir bii nii dagg na samay baram ba tey moo tax ku koy def rek toujours del def nank sinon li ci ëpp solo boo mëne sol guanté comme ni baxna pour après doo kii après lu dagg sa baaraam moom li ba dagg bu bon bi may dagg sax mooy fii ci kaw lay dagg mooy grattoir yi boo koy gratter nga xam nu lu mel nii lii day bëri macha allah léegi bu xawee sakkan nii boo koy gratter léegi da ngay somb boo defee foo pas rek day yóbbaale sa baaraam ngeen moytu loolu dégg sol guwante comme nii may def rek. bo paré nga té ngay moytu bu baax baax baax baax nit ak lu min rek wa té bu leen gaawantu ko man ni may gaawantu to nay mën ngeen ko bañé def parce que moy lool jël sa tan dank rek diko defal comme nima ko doon defee ci commencement mais man comme dama xawa a ni motax may xawa gawon gaawantu pour mu fété boor. por favor bu len dag sen loxo yi ci grattoir sama xarit yi sama soppe yi di leen dégg nag fu ma sha allah comme carotte bi day bari xama carotte mom dafa bari vitamine li rek gis ci ngay naxe xale yi ba mëna lek a lekk ay verdura xam nga parce que li boo fa toggee nii xale yi duñ lek carotte duñ lek supame surtout xale légui dañuy détecter lu bari yu bari dañ koy bañ. mais nag genre togg yi da ngay togg gis ni ñoom ñu ngay préparé yow boo paree rek ñu ngi koy njëkkanteeg yow boo defoon ndànk macha allah ñoom ñoo la ciy ëppale kon recetable bu baax la ci jaboot daal parce que carotte bi nii li ci nekk ci vitamine macha allah ci légumes yëpp daal te comme fi mu toll xam nga ñun duñ ko duñ ko togg te vitamine boo ko toggee day kii bi day dee dëgër bi day dee njariñ bi dootul bari daal. mais ñun buñ paree dañ fay saaf boko ko ni ci friteuse mira gis nga suñu affaire ñuy commencé dik nak yaa ngi am nga sa carotte buñu ñu gratter am sa supame ñu siiga rek tuuti ba suñu ñaari carotte yële mat yaakaar supame bi daañu dolliwaat tuti foojo bi ñew gambas boo paré danga koy xolli benn par benn boko xolle xollee ba mu set dagg bopp bi sànni fële jël jël kii bi nag langiston kii bi yaramu lang langiston bi daal di koy euh, dagg te ba mu sew foojo bi tamit égal danga koy dagg te ba mu sew nga daal di ko ciy def waaw Mhm. bu ñu paree nii nag ba kii ko ba pare nag ci la ñuy bool yëpp nag teg ko instant boobu nag ma defal leen seen beneen vidéo bi pour wan leen naka lañ koy naka lañ koy mélanger voilà léegi comme nii def nañ ko pare li ñuy def rek préparer rek ñun suñu poojoo mu ñor hmm, ganaar bi. bu ñoree rek nga daal di ñëw boole leen ñoom ñëpp mélange egg le temps que bi di pare ñun mën nañu mélanger suñu carotte bi nii allah dari di jël sa nokkos boobu xëpp ci kawam. jël sa avec crème bi xëpp ci kawam def sa tuuti xorom bi yemale xorom bi xam nga bi ngay def ganaar gi xoromoon nga ganaar gi daal loolu tam danga koy sóoraale voilà léegi tuuti ci kanam rek incha allahu rabbi ñu ñëwaat ak yéen ci deuxième phase bi wan leen nu ñuy mis nu ñuy miske yépp hmm? daal di leen di wan nuñ koy ñu ngi koy lëmase ci biir papier bi ndax yaakaar naa ko tey karoot bi moom moo ëpp danga koy essayé lu mu yemaloo carotte bi moom moo ëpp euh, supame bi kon supame bi war nañ dolluwaat tuuti rek mu sonn na tuut ci kanam rek ñu ñëwaat eggale ngeen ci deuxième phase bi mbokk yi nuyu leen bu baax ziyaar leen ay loxo yi na jëm kaw laaj kii macha allah